ba taxaw jot na c'est une famille jot na politique du ko tas mais dama lay wax ne la tey mën nañ dem sax jamono mën na di dox ba jot na am candidat tey jamono mën na di dox ba man mi ma nekk. jot na kay benn candidat ngeen mën a am mooy Ousmane Sonko te gis na gis nañ ce qui s'est arrivé ce qui s'est passé entre entre vous. waaw mais xam nga Ousmane pousse na mais man mii mën naa nekk candidat jot na parce nekkoon naa président jot na. tey leer na ma ne man li ma mën a doxalee réew mi li ma mën ci réew mi Ousmane Sonko mënul xaaju xaajaan bi am na si ñoo xam ne ñu ci jot na dañu mën a non non sax sa xalaat ngay wax rek parce que aussi tey jii mën nga am volonté mën nga am ambition mën nga am bëgg-bëgg mais on sait tous que élection mbooloo moo koy gagné tey jii nii vous au niveau de jot na ce qui reste boog li ci des naka lan ngeen di peser waaw moom laa lay wax xam nga tey solo am na ci solo lool waaye yor mbooloo taxul nga gagné élection li ah. mm-hmm. tax li tax dans l'histoire politique du Sénégal président bu fi mën a jaar mm-hmm. bu fi a jaar depuis 76 léegi boo ñëwee Ablaye Wade moo doon ëpp mbooloo mais tey liy déterminer les votes à la dernière minute ça c'est autre chose waaye dama ne la bés bu yàlla dogaloon tey ba ñun sax yàlla def ñun tey ñu jël réew mi bu boobaa ñun dañ koy teg ci yoon boo xam ne leer nañu ne yoon bi le président Macky Sall teg yoon boobu xam nga Sénégal tey le président Macky Sall dafa teg ci benn orbite boo xam ne man je pense que nit lu mu cuune cuune cuune cuune cuune juste na nekk un républicain na xam ne yow Sénégal moo la ñor koo xam ne ne doo fi nekk naan dañu reyante dañu xeex dañu def ñu doo tax Sénégal koo xam ne ne l'intérêt du Sénégal kese kott moo la ñor passé intérêt bopp kooku fi le président Macky Sall teg réew mi keneen ku mu ku fa ñëw tegu ci tànk yooyu man gëm naa ne Sénégal day mais Gaoussou ki ngay wax nii euh, en parlant de taal réew mi bu mu bokkul euh, le kaw on sait tous que Ousmane Sonko ngay waxal Ousmane Sonko euh, vous avez été très proche politiquement même si tey jii on sait que seen relation politique jeex na mais xam naa ne xam nga l'homme et que fréquenté nga ko xam nga ci moom lu bëri bëri tey jii ce qu'il de subir ñu bëri jàpp ne injustice la noo ko gisee. non franchement xam nga moom bu ñu génnee politique. Mhm. man Ousmane sama xarit la doom ndey la te egg naax moom ñu bëri sax dañuy defe ne ne Ousmane des fois daf may faral ku ma joteel ku ma mënti doon xamul ku tooñ mais chaque fois sama ko lay nekk benn. pourtant pourtant nit kooku dernièrement yaa ngi koy yekk lu mel ne. xeme ci plateau télévision ñëpp di ko dégg. non moom laa lay foofu laay jëmee ñaareel bi mooy que ne nit ku baax la nit humain la. Mhm. bari na sax ay préjugés yi nit yi di def ci moom loolu amul te li ko dal nii man yéenewu ma ko man moo pire ennemi du ma la yéene di dal Ousmane Sonko mu dal rawatina koo xam ne c'est na ami bu ñu génnee dama ne la bu ñu génnee ci cadre politique Ousmane c'est mon na c'est mon frère te loolu nit mënu koo dindi suba suba suba ma neexee damay taal sama oto dem a soos a soos. non loolu mënatul nekk seen diggante gaaw gaaw gaaw non non il faut il faut nga arrêté. aussi parce que yéen ñaar egg na foo xam ne vraiment un retour euh, xam nga tey dama lay wax ne la dama lay wax. ma ne politique bu fekkee ne moo nar a yàq digganteem Ablaye Niane ak politique digganteem Gaoussou politique moom moo tax ma ne la bari ay nit ñi des fois lu ñuy wax ci moom naan dafa mel ni dafa mel ni loolu amul maintenant. pourtant yaa ngi koy wax très souvent maintenant mais xaaral ma wax la maintenant. nee nga ñu Ousmane Sonko c'est un calculateur il est mais mais maintenant yooyu wax nga ñu ko fi. mais dama ne non cest xam nga tamit il faut savoir faire la part des choses man je te parle de je te parle pas maintenant de l'homme politique. non ni ku ni nga mel rek ngay wane. xam nga xam nga lu tax loolu. mooy parce tu n'es pas dans le champ politique. gis nga politiciens yi ngay gis nii defe na ne ay duñu nit defe na ne yàlla bindul ku leen gën tey ñëpp xam nañ ne le président Abdoulaye Wade bi mu ci toll. Mhm. ñëpp dañu doon wax ne kii bu yoree réew mi nii. nitu fitna la nitu moo gën Sénégal ku yàlla bind gën moo la gën xam. Mhm. ñëpp xam nañ loolu man je te parle pas de l'homme politique. boo ñëwee nag ci l'homme politique l'homme politique day chômage day politique gis nga ñu jàppale ne dama lay jox benn. il est sans scrupule. Ousmane ñu jàppale ne euh, li muy def nii keroog maa ko dégg France 24 mu ne moom bu nekkul candidat réew mi lay tax dafa am ñu ma nekk boobu ma fekk bitim réew ñooñu di kaas bi wax naan ma nii nii may leen gis nga mu wax nii écran yi poussé day def xataay reetaan. il n'y croit pas. non c'est-à-dire du ko def non c'est pas croit pas mais. Ousmane c'est un politicien gis nga gis nga tey. non mais pourtant pourtant dans le passé wax yi muy wax am na conséquence. ma ne donc boo nee day tëdd sa mbay. ma ne Ousmane c'est un fin politicien. gis nga li muy def nii yépp il sait comment communiquer il sait comment manipuler la masse. il sait il sait il sait il politicien la comme ni Khalifa Sall tegee ay chemin ba nekk politicien comme ni Ablaye Wade di nekkee ay chemin ba nekk politicien

tey Ousmane problème bu mu am am ah, hmm. problème bu mu am moom ak justice ñoo ko am mais yéenewu ma ko ko tey yéenewu ma ko suba bu ma mënoon def ay ñaan bu ma mënoon tey ut ay pexe ba mu jóge ci da ciy jógee. mais injustice bi muy dund. parce que Macky Sall ñu bëri investir nañ ko. Euh, Pape Diop bëgg nañ ko investir euh, Khalifa Sall pare yi Ousmane Sonko bëgg investir gars yi na ko du ci du ci daal loolu tamit est-ce yoon la. li ma xam waaw je suis un mais xam nga dafa am loo xam ne tey yoon moo ko teg ci kaw ndodd le président Ousmane Sonko mhm. noonu la ko yoon tegee ci ndodd keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen maintenant moom am na ay avocat avocats yi ñu ngi ciy jàpp am na ñoo xam ne ñu ngi koy waxal am na ci ñoo xam ne topp nañ ci ginnaawam yaakaar nañ ko nee na ñu ngi koy xeexal mhm. lu mu mën mooy métti lu ko naxar la ko parce que sama waay la te foofu laa mën a yem parce que politique dafa toll dafay am jamono joo xam ne ku la waxoon démb ne Macky Sall Khalifa Sall dinañu retrouvé wu doo ko gëm ku la waxoon ne la Ablaye Wade ak ak Macky Sall nañu retrouvé wu doo ko gëm donc politique moo demee noo xam ne bu ñu duggee ci cadre politique nañu nekk ay ay mais justement justement Gaoussou li dafa am solo parce que boo seetloo dernièrement ñu ngi wax naan euh, rataxal diggante bi euh, am na ñu ko war a mën a dox te je pense que loolu yéen kenn ko la ci légitime ñi nga xam ne xam ngeen euh, les les deux parties. waaw xam nga ñun boo gisee mais des fois nit dara na ko dal doone ñaw waaye nag Ousmane di ko dal. di ne xamoon naa ko waaw franchement moom bu dee nit rek la war na xam na ne lu ko dal ñu ko koy dee naan ko defal ndànk defal ndànk defal ndànk ba lii dal ko moom xam na ne ñun wax dëgg yàlla. li ko dal la moo ko ko teg bi ñu bi ñu dëgër bopp ak suffisant Ousmane on seul défaut du déglu kenn. mais Ousmane Modou Awa. amul Sénégal ku ko gënoon jox cër amul Sénégal ku ko gënoon fidèle ku waa jot na jot na dañoo àndoon ak moom. vous étiez à la de tout. yéen la woon depuis le début. te ñun bu ñuy ànd ak yow dañuy ànd ak yow ci gëm-gëm dañuy ànd ak yow ci gore waaye Ousmane dafa toll. mais tey mu dut parce que ci yéen tey jii nii am na ñoo xam ne ñu ngi collaboré ak le président de raison. amul rapport ma ne l'avenir raison. ñun fi ñu nekkoon démb ak barki démb fa lañ nekkoon moom ci boppam moo génn dem ànd ak ñoo xam ne ne ñooñu ñoo ko doon xas barki démb ak say noonu démb nag bu ñu nangoo tey mooy seen pexe daa amul ñun dañuy politique bu ñu ànd ak yow ba nga dem ba am koo xam ne toll nga fa nga dem ba jàpp ne ne yow war nga ñoo xeeb mm-hmm. war a gis ñoo xam ne démb ñun ñoo jàmmaloo woon ak ñooñu pour yow nga jëm kanam ah loolu nag beneen façon guerre ouverte. en une minute loolee tey ji euh, li arrivé coalition Yewwi Askan Wi intercoalition ko gisee parce que mel na jamono ji xaajaloo na ñëpp a ngi jël seen yoon. waaw mais man yàgg la woon. non ba pare li ko waxee woon yëpp noonu lay demee ñun ñu waxee ko woon yëpp noonu lay demee tey ne la ñun tey dañoo am benn euh, lu fierté boo xam ne neexuñu mhm. parce que tey bu ñu sañoon yëf yi du demee nii. du demee nii waaw mais avec le recul dañuy espériez avoir tort malheureusement. waaw li ngeen xalaatoon moo am. li ñu xalaatoon moo am te li ñu doon xeex tey ba coow li am loolu moo am fi may jeexalee daal tey euh, Mamadou Awa mooy. Sénégal dëkku jàmm na ni xam ne réew Sëriñ Bamba réew maam Limaamu Laay réew maam El Hadj Malick réew Baye Niass réew mm-hmm. baax yi nekk réew mii ak ku mu mënti doon ku jàpp na ni war ngaa mën a tax ba réew mi tàkk tàkk bu ñëw boo moytuwul si yow lay donc nañuy dalal xol dëfal xol yi xam na ne ay chemin politique day am Ousmane na dem jàngiwaat. Ousmane a gagné la maturité politique. non mënul jàngiwaat. Ousmane ak li topp si ginnaawam comme mbooloo Ousmane ak Sakil incarne. le monde entier parle de lui naan nga xam nga tey euh, boo demee en France en terme d'électorat Marine Le Pen. Mhm. moo ëpp électorat téeméer junni yoon téeméer maam junni yoon Ousmane. gën ko daal téeméer mu am xam nga mën nga toll foo xam ne di nga am en 10 secondes jeex na nga am mm-hmm. Ousmane bëri na ay soldats te li ma lay wax nii ay waxam laa lay wax mm-hmm. moom bëri na ay soldats waaye bëriwul ay généraux te réew boo ko bëree boo ko waree yor da nga war a bëri ay soldats ba pare bëri ay généraux di ñaan le président Macky Sall ak soxnam yàlla bàyyi leen ba ci kanam merci beaucoup parce que gis nga je pense que ne tey Sénégal mm-hmm. dañoo war a ñun ñu maase merci Gaoussou le président Macky Sall góor la. jërëjëf le président Macky Sall terme la le président Macky Sall noble la. merci beaucoup c'est un plaisir de vous recevoir. le plaisir est partagé. jërëjëf Gaoussou Koma président du parti Teranga Sénégal vice président de la coalition. koy sant ci leeral yi dig daje suba ak jàmm à la même heure ak beneen gan yaa ngeen jëf merci.